di leen sant di leen gërëm di sant mbooloo mu fi teew bi di ñaan taxawaay bi ñu fi taxaw suñu borom moom defal ma lu koy suñu dégg ma ci suñu rëcc rek mu suñu xew bu dina fi fi yàlla ak ñu yàlla rek tax ñu tax ndax yàlla néeg bi néegu yàlla la néeg bi ñun ñëpp bis bi wér rawatina ci ndax ñu bare bare teew kon nag maa ngi ñaan ñu def teew ñëpp ak ñi bëgg a ñëw te ndax ñii seenu ñàkk dama ñeen ñi xool jëf bi sax seen xol sedd ci suñu borom defal na ci suñu xaaju gu sëy ak laaj barke baax di leen gërëm ku ñëw na ñëw te yàlla dogal ko yëpp ñëw te yàlla ndax ngir yàlla rek jëlay taala rek a tax mu def ak sëriñ Tuubaa ak mag ñu baax ñaan ndax dundalee ko ni sëñ bi jàkk mu waral muy royaatee ak di ko defar mag moo moo waral suñu def yi ñu def ànd ko daaru yi yëpp ku ne moom mi nga xam ne moom moo xam mu ci waay rek ak na nga ci jëfe mbaa nga yéene ko rek suñu borom yàlla na ci def lu ko weesoo njort ci say sa bopp defal na ci def yëggal defal ko njaboot allahuma ju ci waay ñaanit suñu borom nangu ko lu fi waay jégguloo suñu borom jéggal bawuñ kenn góor jigéen mag ndaw ñëpp ma ngi sant bu baax te di leen sant yéen waa Jokalante ndax li ngeen def ak jotal sama kàddu mën naa ak foo xam ni sama yéene romb romb na ko waaye nag wax ji mënu fa àgg te yéen man ngeen ko fa àgg man maa ngi leen di sant te suñu borom nangu na li ñaan yi ma ci ñaan suñu borom nangu yëpp te yàlla sosee aadama ba ila yow min axir rek fi di julli rek suñu borom yàlla na yàlla jéggal na xaj na ci ndax kii ku dul jël la ni ñaan boo ko ñaan da nga ci yéene ñëpp mooy man moom boo waral samay mooy ñaan bu dee dama ci yéene wala ci jullit da nga xam ne ci awalan lañ ci aadama mu jëkk bu ila yow min axir ku fi yàlla nga ak nga di ngër di jullit gëm yàlla am benn tomb imaan rek yàlla gërëm ak yàlla sukkandu jéggal la yee ci def yëpp barke Sëriñ Tuubaa barke yonent bi nga xam ne mooy tax mu bind lu ne ak ak Sëriñ Tuubaa jëwriñam ak jëwriñ bu baax yi ñu am na jërëjëf jëf maa ngi sant bu baax yàlla yàlla nangul ñaan yëpp rek defal ko defal